إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين eyen mbokku julit yi gannaaw ba ñu sant suñu boroom mi nga xam ne dañoo war a sax di ko sant wéetal ko moom dong yooyu ñu koy jaamu yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yëndi woon ngir mu jàng jàngal ñu ni koy jaamoo yal na yàlla boole ñu te ñëkk a gëm topp ko te yàlla saxal ak julli ci moom ak njabootam bay la yëndi jël mbokk yi bu dee loolu wéy na ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla képp koo xam ne nii day doon nga ko ragal yàlla xamal ne yaa gën ci jaami yàlla yi doomu aadama yi gëneen ci wuñu ci suñu dund gëneen ci wuñu ci seen xam-xam gëneen ci wuñu ci seen am-am ci gën ci ñoom daal mooy ci gën a ragal yàlla looloo tax suñu borom woo nañu ne ay yéen ñi gëm ragal leen yàlla te sàkku ni ngeen di jegee seen borom ngeen góorgóorlu ci yoonu yàlla lii day mooy tax ngeen mën a texe mbokk texe yi noonu am jàmmi adduna jàmmi àllaaxira benn yoon dong la mooy toppal ko liggéeyu boroom gannaaw ba nga jëmee bokkaale woo ko ab dara xam leen ne ñu ngi dund ci bis yoo xam ne ay bisi liggéey la mbokk bi bisu pay firiwul ne ñii jaamu yàlla ñoo dajale xiiwulu adduna firiwul ne ñii mooy yàlla ñoo dajale mbugulu adduna mbokkoo adduna këru liggéey la waaye xëy gaa ngay xaar ci àllaaxira am naa bu jëmee àllaaxira su boobaa it liggéey amu ko fay fay dong nga ma fa am mooy gis loo xam ni loo ma sa def ci lu baax na nga la fay xaar loo ma sa def ci lu bon na nga la fay xaar ay ay jàng la fay faar suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni maa ngi leen di moytu loo sama bopp ndax yàlla daa am yërmande ci ay jaamam bokk na ci yërmande mooy mu leeralal ñu yoon way tax ñu tabbi àjjanaam ja leeralal ñu yoon way tax ñu tabbi sa waram ja loolu ma tax ba gàllawaay yi bokk di leen xam leen ni sunu borom yàlla di moo bind lu mu mën a doon waaye moo tànn ci biiri mbindaa konam la ko te neex ci ay place amul kenn ci yéen ku réere ne makka moo gën feneen fu dul makka gannaaw ba madina gannaaw ba absa tànn ay mbindaa konam jël ko ñoo xam ne da leen jagleel ñii ay yeneen naka noonu ngi tamit la tànni la nga xamee ni nii mooy ay jamono bokk na ci jamono yooyu ca la nga xam ni mooy weer yi yàlla warmaal weer yooyee nga xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bam bindee asamaan yi ak suuf utal ko yoon wu muy jaar mu ni defoon na weer yi fukki weer ak ñaar lii day mooy diine boo xam ni diine bu jub la doonte ne ne mbokk julit tey jii li bari ci doomu aadama yi tëralin woowu yàlla tërale woon ay weeram xamuñu ko toppatoowuñu ko bu doon te yéefar yaa loolu moom du problème waaye xattaa ci biir julit ñi li bari ci doomi julit yi tey lan lañu xam ci at mooy janvier février août décembre ila axiri waaye mbokk loolu xam leen ni calendrier la bu jóge ci ay yéeféer bu dee dañ cay sukkandikoo na doon loo xam ne dafa aju ci suñuy rendez-vous adduna amma lépp loo xam ne daa aju ci jaamu yàlla jullit du ca xool beneen calendrier bu dul calendrier islam bi nga xam ni mi ngi déparé ci tam xarit mi ngi jeexee ca la nga xam ne mooy tabaski loole di fukki weer ak ñaar suñu borom séddale ko at mi tànn na ci ñeenti weer yoo xam ne nee na da koo war maaw ñetti yee dañoo tegaloo yii yëpp suñu borom mu ne weer yi ñu war mal la ngalawaay bu leen ci tooñ seen bopp ba ko ñeenteel mooy li ñuy tudde ndeyu koor ñu koy wax rajab nga xam ni mooy juróom-ñaareelu weer ci lislaam suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee ci aj makka ba bokkoon na loo xam ne yéefir yi dañ ko daan def dañuy jàpp ne ah ñu ngi nii ci weeru tam xarit weer wi day moom araam nañu xeex ci waaye nag jog suñuy noon jépp nañu leen kon lu ñuy def dañuy dem ci buxaaba yi ñu daal di génn seeni sarax ñu ne kon léegi weeru tam xarit bi soppi nañ ko changé ko beneen weer bi topp ci gannaawam bu ñu xeexee ba déwén ñu doon ko delloo tam xarit place am loolu ñu doon perturbé calendrier borom bi demoon na ba weer yi kenn xamatul ban weer ban place la yeyoo amma bi yàlla di dogal yeneen ci yàlla bi di aj makka te la yàlla réglé waat weer yëpp ba bëri ko tege waat place am yeneen ci daal islam ne nag léegi mi ngi nii weer yi day nii la ko yàlla bëgge woon te mooy fa lillahi alhamdu ni ko julit ñu xamee ba ila yu mina xam suñu borom mu teg maam moo koy def ci lu neex lu ko neex ndax it bokk na ci ñetti weer yooyee ca la yàlla farataal ak makka da nga xam ne ma ngay am sa njël bii nu tabaski ba tële nit ñuy daje loolu tax un mois avant ak un mois après ak weer wu ñuy ati bi ñetti weer suñu borom ne weer yi wormal nañ ko bu ci kenn tooñ kenn yéeféeri arab ya lañ doon bon bon ci seen wàllu diine ñetti weer yi képp kuñ masan gis duñu la laal bàyyi na boo àndal duñ ko laal ñoom gëmuñu woon sax àllaaxira mais dañ jàppoon ne boo ko jalgatee da ngay alk fii ci àdduna comme mbañ yu bëri yu suñu maam yi di bañ tey mbokk weer yaa ngi nii di weer yi ñu war maal léegi nag yow jurit bu dee yàlla dafa dogal nga dugg ci weer yooyee nan nga koy war maale mbokk na nga xam ne loo gën a ragal yàlla gën a màggal la yàlla jàll wa ala màggal lu sa ngëm di gën a néew ngay gën a bañ a saale mandarga yàlla yi loolu moo tax ba képp ci ñun war naa góorgóorlu la suñu borom tere ne bu leen ci toon mbokk lan mooy tooñ tooñ mooy lépp loo teg foo wur fu mbur wala tege la gën a màgg ci tooñ yooyu mooy tooñ bu jëm sa digganteeg sa borom la ca gën a màgg mooy ngay bokkaale ak sa borom jënd waala di yaakaar keneen ku dul moom toroxlul keneen ku dul moom yëkkati keneen ku dul moom bokk na ci tooñ yooyee lan la digal ci julli nga sàgg na ko koor nga sàgg na ko lan la digaloon ci zakaat lan la digaloon ci bàyyi mboole mi bàkkaar nga sàgg na ko loolee mbokk da ngay gis ne lii moom sa diggante la ak sa borom waaye itamit nga war a góorgóorlu bañ a kon say morom waxuma koo xam ne nii nit la comme yow waaye xatta bàyyi ma sax bu ko tooñ yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ñu soxna soo xam ne benn muus la tooñoon loolu moo ko tàbbal bil sawara kon mbokk li ñuy gis moo di ne ne na am tooñ yooyu day doon na loo xam ne nii jullit da ciy bàyyi xel la suñu borom subhanahu wa taala wax nee na man day araamal naa du ma tooñ sama benn jaam mbokk yàlla du tooñ kenn bind na la may la xel tëralal la yoon bii moo jëm àddina bii moo jëm sawara heure boo sàgganee ba sànq sam xel jaar ci yoonu sawara kenn tooñu la yaa doon sa bopp suñu borom it wax nañu ne ci lan la ñuy leen tam amoo tooñ booy tooñ ci kaw suuf lu dul ay lëndëm la lay xaare yowm al qiyaama mu bokk nag bokk julit lu bari ci julit ñi day mën nañu mucc ci bakkaar yu bëri waaye mu am ci nag benn boo xam ne te yëpp gën a màgg la bokk ku nekk ci ñun war ci bàyyi xel mbokk mooy la nga xam ne mooy bakkaaru lamiñ bakkaaru lamiñ yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam jàkkoor nag moos ibnu jabal di ko wax defal lii bàyyi lii defal lii bàyyi lii ba mu ci mën a ko waa mois xanaa doo kaay ma wax la nag la nga xam ne moom nga war a gën a ittewoo mu ne ko asata yow mi yàlla yónni mu génn làmmiñam bu tedd ba na ko mu am fexeel moytu kii mu am na ko ah yow mi yàlla yónni ndax ñun daañu jàppe li ñuy wax mu ne mu am xanaa xamoo ne ku dugg sawara dañuy jël kanamam dëppi sawara ay tànkam féete kaw lan moo waral loolu mooy làmmiñam moo ko ko yóbbi moo gaa yi bakkaar bu rëy la jëw ndax tànk moo koy def làmmiñ moo koy def bakkaar boo xam ne rëy na na aw fen làmmiñ moo koy def bakkaaru rambaaj làmmiñ moo koy def xas as xas as gor làmmiñ moo koy def puukaru tagg sa bopp làmmiñ moo koy def ayibal doomu aadama yi ci lu mu mën a doon làmmiñ moo koy def looloo tax ku nekk ci ñun war a góorgóorlu kémtaleel kattanam di jéem a xool ay waxinam yonente bi alayhi salatu wasalaam ne képp ku gëm yàlla gëm ne bisi penc mi ngi koy xaar lu muy wax na doon yiw wala mu téye làmmiñam xariko buxaari ak muslim solo nañ ko mbokk ñetti wéere ngi ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa da ci araamal ne ngalla waay bu leen ci tooñ loolee kon nañu góorgóorlu di moytu tooñ di moytu ku ñu mën a yóbbu ci tooñ ak place bu ñu mën a yóbbu ci tooñ suñu borom yàlla nee na heure boo jógee del dem di toog ak ñoo xam ne dañuy yaakaar seen borom di ko woo duñ ko bokkaale ak kenn ngalla waay bëgg adduna bu mu tax nga leen di jéggi dem di ànd ak ñoo xam ne dañoo sàggane turu yàlla ñu ngi noonu dañoo sàggane turu yàlla lépp luñ la woo jëme ca muy loo xam ne mbiru àdduna la loolee mbokk ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu bàyyi ci xel donte ne nii bokk na lu ñu war a gën a bàyyi xel ñu xam ne tey suñu toogaali bi gën a jege nekkatul suñu xarit nekkatul suñu soxna nekkatul suñu àndandoo toogaale bi gën a jege tey mooy suñuy portable wala waaye nañ ci bàyyi xel te la nga xam ne nii moom la ñuy jël suñuy waxtu di ko def lan lañ ciy gëm lan lañ ciy dégale suñu xol lan lañ ciy tuxal jëmale ci ñeneen yooyu yépp mbokk ay responsabilité la yoo xam ne nii képp koo xam ne nii moytuwu ko de yowmal qiyaama bu demee dana wax ay aka neexoon na ba ñoo am portable mbokk nga lay waay xam leen ni li nga xamee ne nii moom la ñuy teeroo weer yi di ñëw suñu borom nee na buñ ci tool la ci jiitu mooy kon nañu dogu jéem a moytu bépp bàkkaar boo xam ne jàppoon nañ ko ñi nga ca xam nañ ne bàkkaar musul baax fenn weer bu ñu warmaal bu ñu warmaalul ci yem waaye mbokk yéen ñëpp xam ngeen ni dem fee ca mbedd ma teere basket bee njaaloo ko fukk yoon ak juróom moo gën nga ñëw ci néew gëm yàlla yàlla bi njaaloo ci benn yoon lu waral loolu mooy ki nga xam ne daa def la bon ci néegub yàlla bi boole na def bakkaar ba pare boole xotti war may la yàlla warmaal loolu mooy danger weer yii ñu nar a jëm bakkaar yi nga doon def ci biti loolu lu grave la amma bakkaar yi nga def ci weer yi ñu jëm dafay boole bakkaar ak xotti la la yàlla ne woon lii bu ko def loolee kon di mbir moo xam ne nii ku nekk suñu war a góorgóorlu xoolaatal say farata toon gi gën a rëy dakkaar yi gën a rëy bokk na ci bàyyi farata xoolaatal la yàlla araamal ci yow xoolal àq yi nga xam ne yoroon nga ko doomu aadama yi soxna la doom la dëkkandoo la collègue de service la employé la comme mën a doon nga la way ku nekk nga góorgóorlu delloo ko la nga xam ne mooy àqam te ñu xam ne mbokk julit doomu aadama day ñu ngi am problème ak bakkanam di xeex ak moom waaye xamal ne yàlla nattoo nañu noon boo xam ne nii ñi ngi ñu topp du bàyyi la nga xam ne mooy xeex ak ñun fii suñu ruux teqalikoowul ak ñun kookee bokk mooy cheytaan cheytaan ne dafa suñu borom yàlla génne ci yërmande da koo ñaan na ko yàlla may ma ma dund ba baa di pénc bi taxaw suñu borom yàlla na ko may naa la loolu mu ne ko nag maa ngi waat ci sa kattan ne ñii nga xam ne ñooy say jaam tey danaa leen dikkal toog ci yoon wu jub bi nga leen wax ni jaar la aqu odanna lahum siraataka almustaqim gannaaw ba yàlla danaa leen dikkal ci seen kanam ay lépp loo xamee ni nii dafa nekk ci àdduna danaa ko taaral màggal ko ci ñoom ba ñu fàtte la danaa leen dikkal seen gannaaw la nga xamee ne mooy alaxira ji nga xam ne fa la ñu dee jëm fa danaa leen ko fàtteloo complètement bu duñ ko waajal danaa leen dikkal seen ndeyjoor lépp loo leen digal danaa ko màggal ci ñoom rëyal ko ci ñoom diisal ko ci ñoom ba duñ ko def danaa leen dikkal seen càmmoon lépp loo xam ne araamal nga ko ci ñoom danaa leen ko taaralal bànnee xam leen ko lu mu jafe-jafe lu mu cher cher danaa ko yombal ci ñoom bañ def ko yàlla maa ngi lay waatal na bu may pare ci ñoom lu ëpp ci ñoom damay fekk duñu nekk di la sant mbokk lii suñu borom nee na ba ko cheytaan yi di wax dafa jàppoon ne njort la farlam waxoon na mujj am laqad sadaqa alayhi iblisu zannu iblis nay dëggal na ci ñoom njort gam njortoon ñu topp ko lu dul lu néew ci jullit ñi yàlla yàlla boole ñu ci ñooñu loolu moo tax kon boo ko fagaru leen xam leen ne heure boo jógee jëm ci lu baax seytaane takk na ngeen bam ngiree bañ nga def ko heure booy xalaat lu bon seytaane takk na ngeen bam dina ko taaralal dina ci ñaax nan la yàlla borom yërmande la dafa lii gannaaw da ngay tuub woyofal ko sa xol ba nga daal di dem di tàbbi ci loolu wala waay ku nekk ci ñun na fàttaliku sunu bàyyi ñun ñëpp di aadama alayhi salaam yàlla teral ko fa teraanga yem bind ko ci loxoom sant ay malaakam ñu si juutal ko tàbbal ko biir ajjana fu la neex yàpp soxna dem leen fu la neex lekk leen garab gële nag bu leen ko jege seytaane topp ko aadama xam ne sa borom li tax mu tere la garab gi day xam ne boo ko lekkee da ngeen ñu doon ay malaaka boo ko lekkee dootoo dee ba faw ay aadama kaay ma wax la nguur goo xam ne du rab di nax aadama di nax aadama suñu borom mu ne ko dallahuma bi xurur noonu la leen wàccee nank-nank di leen nax nank-nank ba ñu nekk garab ga naka noonu it mbokk noonu cheytaan ni defee suñu bàyyi noonu lay defee képp kenn ci ñun cheytaane xëyegul kenn ci jaami yàlla yi imma mu dox sa digganteeg nga bañ a dugg ci lislaam wala boo duggee ci lislaam mu dox sa digganteeg lay toon ci lislaam doo ko jëfe heure boo xamee ne nii rëcc nga ko ci loolu mu taaral ci yow la nga xam ne mooy ay bidaa la nga xam ne mooy bakkaar yu mag ya amul lenn loo xam ne cheytaane dana ko xeeb ci yow loolu moo tax ba nga la waayi mbokk ci weer yi nga xam ne dañ ciy dund ku nekk ci ñun na góorgóorlu waat fu mu mën a toll def ko weeri entraînement def ko weeru fagaru te xam ne suñu borom yàlla day ku màggal la màggal mu màggal la suñu borom yàlla day ku soofantal la mu soofantal mu soofantal la loolu ku nekk war naa góorgóorlu mu bay ci xel bu baax su ko defee kon mbokk lii mooy weer yi nga xam ne nii dañ koo war maal ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne kenn du mucc du dul ko muccal yal na yàlla musal ñu ci suñu ay bakkan yal na yàlla musal ñu ci ay seytaane ak i pexeen yal na yàlla dox suñu digganteeg ñu koy toon yal na yàlla dox suñu digganteeg ñuy toon kenn ci ay mbindaa konam yal na yàlla yombalal ñu yoonu njub yal na yàlla saxal suñu njëggu ala siratal mustaqim yal nañu bëggaloo lépp luy gëm ca taaral ko suñu xol yal nañu bari loo lépp luy kiisee rek jaaxaar ca ñaawal ko suñu biir xol yàlla ñuy may mujj gu rafet yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet yàlla ñuy yërëmaate yal na yàlla yërëm mbooli ni niiwu jurit yi ñu jiital yàlla ñuy barkeel yal na yàlla barkeelal ñu suñu njaboot yal na yàlla barkeelal ñu suñuy am am yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu àjjane seen daw suñu suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين